nuyu nañ leen mbokk internetu Dakar Net ñi ngi amaat mbégte ak contentement di àndaat ak yéen ci seen émission réponse à l'actu tey nag ñu dalal ci sunu kilifa muy euh, Ibrahima Lissa Faye daal di jiite li nga xam ne mooy appel association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne président ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay sant bu baax waa di nuyu waa Dakar point net yëpp ak ñëpp di leen seetaan. tey nag ñu nar waxtaanee point yu bari yi nga xam ne ni ci actualité bi comme niñ ko waxee tout à l'heure réponse à l'actu maintenant ñu nar ko doore ak li nga xam ne nii moom mooy euh, li nga xam ne mooy kuréel gi ngeen jiite muy appel est-ce que vous représentez toute la presse en ligne ou bien une partie de la presse en ligne une partie de la presse en ligne on ne peut pas représenter toute parce que pour bokk appel dafa am ay critères te critères yi boo ko motalewul mënoo bokk appel et donc appel jamono jii ni soixante-dix-sept membre la am. maintenant yan points euh, lañ war a matale donc pour mën a bokk ci appel. pour mën a bokk ci appel en fait il faut en fait nga nekk site d'information benn di liggéey ak ay journalistes ay journalistes lañ wax nag. Euh, yoo xam ne ñu ngi génnee école wala ñoo xam te ne ils sont formés sur le tas mais en tout cas ñu nekk ay journalistes ñu mën a prouver que ne ay journalistes lañu te it aussi nga am contenu bu professionnel continue bu professionnel mooy maanaam continue boo xam ne c'est lié à l'actualité c'est lié également aussi au règles qui régissent le métier de journalisme et teg ci aussi fekkente ne am nga siège day gën a taxawal day gën a mottali sa dëgëraay nekk na point yoo xam ne yu ñu gën a faratal la waaw ba tax na en fait euh, et it euh, ki ko taxawal maanaam il faut mu nekk business am c'est-à-dire euh, man mii par exemple nekk Presse Afrique man Presse Afrique laay xëy di ñëw di ko lijjanti donc mën naa ne sama business principal Presse Afrique la donc nga jël aussi Seneweb Abdou Salam Fall mi ngi ko jiite business principal am Seneweb la mu di Serigne Diagne mu di keneen ak keneen ak keneen ak keneen c'est-à-dire maanaam munoo taxawal site information boo paree nekk ci beneen média di fa liggéey loolu maanaam euh, parce que boo ko nangoo rek maanaam presque kon da nga nangu li nga xam ne créé nañ site parce que tey journaliste yu ci bëri dañuy xëy fenn ba pare tëj seen beneen site di concurrence journal bi te loolu lu ñuy wax concurrence déloyale la yoon nanguwu ko. donc ba tax na donc yooyu noonu boo ko matalewul munoo bokk ci biir appel. président gis nañ ne dëkk bi jaxasoo na donc journalistes yi nga xam ne ni ñoom ñoo war a def liggéey bi di dem di puiser les informations di ko indi ñu gis ne journalistes yi maintenant dañu am problème pour génne information yi gis nañ ko tout à l'heure ak journalistes yi nga xam ne dañ leen di gaañ ñenn ñi dañ leen di wax ay wax yoo xam ne tegginewul ay dégage du n'importe quoi la ñuy wax journalistes yi loolu ban appel war a mën a am mais xam nga loolu dañ ko war et eh, eh, it wax dëgg fa yàlla bind bataaxal ñi nga xam ne ñoo yilif force de yi muy di ministère de l'intérieur wax aussi it ak président xamal que ne ñun suñu liggéey la ñuy def journaliste taataan xibaar traité ko diffusé ko mooy liggéeyam donc bu ñu demee nag ba war a mënatuñu taataan xibaar ñuy ñëw di taataan si xibaar ñu ñuy xoqatal di ñu sànni ay lacrymogène di ñu xoñoñal ah boobakat problème am na problème am na ndaxte gis nañu caméraman West TV bi dañ ko gaañ ci bopp ba mu ngi hôpital nii gis nañ yeneen journaliste yi ñu leen taxañee ba yóbbu leen foo xam te ne ñu joxe information ça c'est une entrave à la liberté de presse et c'est extrêmement grave pour un pays démocratique et nekkul loo xam te ne mën nañ ko nangu même si en fait euh, secrétaire général Synpics dafa nekkat kat euh, bakkan jarul euh, bak kii euh, information jarul bakkan waaye it aussi dañu war a xam ne journaliste bu engagé woo ci métier bi métier bi mën na ko woo fu nekk fépp foo information am war na fa mën a teew pour taataan xibaar bi tas ka mboolam ñëpp jot ci. gis nañ ko euh, la fois passée aussi ak assemblée mu mel ni dañuy dem sax ba leen di utal ay limites est-ce que tamit njortu ñu ni am na loo xam ne ni ça se passe alors que bëgguñu les journalistes ou bien encore la presse daal ci jot. mais euh, loolu en fait euh, mooy li may wax rek entrave à la liberté de presse la et dëkk yi dooyu boo mënti dem ci àdduna bi même bu amoon guerre sax. dañuy xàllal journaliste yi ñu def seen liggéey et donc c' est pas normal aujourd'hui mu nekk juste maanaam opposant war a dem répondre à la justice maanaam ñu jël journaliste yi parqué leen ne du ñu def seen liggéey loolu du dëgg du yoon et waruñu ko nangu waaw wax léegi opposant war a dem euh, wuy ji la justice que pensez-vous de l' affaire Ousmane Sonko Adji Sarr loolu moom mun naa ne awma ci lu ma ci xalaat ndaxte sama métier mooy journaliste maanaam mu poser acte ñu couvrir que génne ko point kantaan nag affaire bi ni mu demee ak loolu noonu yëpp loolu man dama koy bàyyeeg opinion bi nga xam ne ñooy commentaire waaye man les faits ñoo ma ñor parce que journaliste la journaliste lay faits la war a occuper. waaw ma d'accord toujours comme les faits moo ñor dañuy rek euh, génne information bi joxe ko ni mu malee sans aucun commentaire mais dañu gis. am na ci journaliste yoo xam ne ni dañu sax far am ay PV yu ñuy diffusé nga dégg fi PV bi dégg fii PV est-ce que donc normal na journaliste bi yor PV bi diffusé ko. xam nga dafa am lu ñuy wax le secret de l'instruction qui est protégé par la loi et donc euh, journaliste amul droit publier PV waaye dossier bi ni mu demee nii nga xam te ni lépp est sur la place publique ndax journaliste day croiser les bras ne du ko diffuser mënut a nekk mënut a nekk PV yi bu ngeen ko journaliste publier wul nit ñi nañ ko publier seen i compte Facebook publier ko ci Twitter mi ngi fépp ñëpp gis nañ ko xam na li ci nekk donc juste pour wax que ne maanaam euh, bu dee maanaam procédure bu normal la dossier bu normal boo xam ne amul beneen i jafe-jafe bu amul beneen i euh, lu ci rax journaliste amul droit publier. ay PV d'audition. ndax jël ngeen en compte les nouveaux dispo les dispositions du nouveau code de la presse pour euh, remettre en appoint la presse en ligne. ah bi bien bien sûr en fait euh, man mën naa ne sax disposition code de la presse boobu dafay nekk luy dooleel presse en ligne bi et ñu ci gën a sukkandiku pour mën a def suñu liggéey et donc am na loo xam te ne euh, ñun lu ñu lu ñu d'accord la et yi ci yees mooy maanaam décret d'application yoo xam ne signé nañ ko génne nañ ko gis nañ ko teg nañ suñu bët dañ li ci des mooy ARCA bi mooy haute autorité de régulation des communications électroniques euh, audiovisuelle moom la ñuy xaar ñu taxawal ko boobu daal moo ci des. ah jërëjëf mbokk yi euh, sa dernier mot xanaa di leen jaajëfal di ñaan rek euh, ngeen taataan information bi waaye ngeen moytu bu baax a baax def attention jox xeex ko surtout na mu waree. jërëjëf. mbokk internet yi loolu moo nekkoon euh, tey émission bi ñu mooy li ñu leen doon wax rek réponse à l'actualité ñu àndoon si ak euh, le président de l'appel Ibrahima sa Faye donc jërëjëf euh, à la prochaine incha allah merci